xibaar yi ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye. ñaari waxtu ci bëccëg fegg na fanweeri minute ca misira jàpp daaru mu xibaaru digg bëccëg gi bopp xibaar yi ci gën a fees ñu fasale leen ko faram fàcceel ay fan rek des ngir ñu amal màggalu ko Daaru Musi lu ni mel waral waa service vétérinaire ba nekk foofee ca Daaru Musi amaloon ab bis bu dañ ci doon posene leen ci rek ak jur gu fa ne rawatina ñi la di dawkat yi incha allah dinañ ci ñëw ci xibaar yi ba tey dinañ wax ci xibaar ci journée culturelle bu ñu doon amal foofee ca centre Serigne Mbacke Bousso muy Al Azhar ba nekk foofee ca Touba Madiana ki la di kilifa gën ak di Serigne Fallou Bousso Assane yëkkati na ci ay kàddu dinañ ci ñëw ci xibaar yi njabootuk euh, maam Cheikh Ibrahima Fall gi xalif général des mourides sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru sant liggéey bi dem nañ foofee nag ca marché Ocass bu Touba loolu yi nag waral ki di Alaaji Fall ma jiite marchand ambulant yëkkati ay kàddu di ko rafetlu dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi dinañ wax itam ci lu jëm ci lu soxal askan wi ki la di euh, docteur Mamadou Mbodj euh, mi jiite ànd diisoo defar Mbàkke waaye tamit di président association ànd soppi a lu mu xam ne tamit dafa ñu toll ca liggéey ba ngir rek jëla ndox mi Sadio indi ko Mbàkke ay kàddoom dinañ ci ñëw ci xibaar yi dinañu dem ca Kaolack ab séminaire bu ñu amal ña koy amal di convention des jeunes reporters lëkkalu ci ak ci ay projet ñu bëgg rek mooy accès à l'information muy journaliste rek gën a mën a xóotal seen mbir ci wàllu liggéey rawatina jëmale ko ci wàllu autorités yi dinañ ci ñëw ci xibaar yi ak kàddu yi ñenn ci ay kilifa dénk nañ ko kila di Papa Saer mbay mbokk yi lii dinañ ci teg benn reportage bu ñu leen defal foofee ca njaareem jagleel ko wàññi teg luyaas gi ana lu ciy gis-gisu ñenn ci askan wi dinañ ci ñëw ci xibaaru liggéey Baye Fall yi tey ji la ci euh, juróom-ñeenti fan niñ koy faral defee démb nag ci juróom-ñetteelu fan yi def nañ ci ab reportage foofee ca marché Ocass bu Touba mbokk yi lii lañ leen di fas yéene faram fàcceel ci ay xibaar nes kiis ñu ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatu xibaar yi fii si UCAB FM ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye Cheikh Bey mooy ki ne ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye mooy ki ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo file ci Touba ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépp it foo leen ne ci ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti w ba tey it mën ngeen a jàkkaarloog ñun boo defee ci YouTube UCAB live TV xibaaru digg bëccëg gi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. ay fan rek des ngir ñu amal màggaluk Daaru Musi lu ni mel nag waral waa service vétérinaire ba nekk foofee ca Daaru Musi amaloonu campagne ngir xool rek ana nan la ñuy posone yenn ci ak eh, yenn ci ay ay mala rawatina nag dawkat ya nekk foofee ca dëkk ba bu ñu sukkandikoo nag ci sa Faye lu ci toll ci eh, juróom fukki dawkat foofee posé nañ leen ba jamono ji génn nañ dëkk ba Idrissa Faye ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. liggéey bi nga doon def eh, mu doon. di xeex ak dawkat yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi te amuñu borom di indi ay loraange yu bari euh, di mattaate di tiitalaate euh, te bépp fee euh, dawkat boo xam ne am na ci feebar boobu nga xam ne ñu ngi koy wax rage képp ku matt kenn mënu koo faj bu mattee jur kenn mënu ko faj bu mattee doomu aadama également kenn mënu ko faj te bu boobaa c'est mortel maanaam lu mën a faagaagal doomu aadama la. fi may commencer mooy sant d'abord le ministère de l'élevage ndax jëwrin ji at bu ne. bu màggal jotee daf naan lépp loo xam ne disposition lu war a jëm ca Daaru Muxti na ko ministère bi def ndax màggalu Daaru Muxti dafa doon bés boo xam ne bés bu mu fonk la ba tax na ministère bi disposition yi nga xam ne nii war na ko muy jumtukaay yi muy euh, poson yi muy lépp loo xam ne nii dañ koy jëfandikoo pour opération bi réussir dernière édition 2023 bi le ministère de l'élevage def nañ ko jaarale ko ci direction des services vétérinaires ak DAGE ak lépp lépp direction boo xam ne ñu ngi ñuy jàppale ci liggéey bi ñu def. opération bi ñu ngi ko commencé démb ci guddi gi donc on a démarré vers vingt heures waaj waajal appât defar ko xaar ba guddi gi sori ñu jël appât yi fépp foo xam ne yaakaar nañ ne am na ay dawkat yu fa ne ñu dem teg ko fa suñ ko tegee bu fajar gi jotee également ñu jogaat fépp fu ñu jaaroon ñu jaaraat fa léegoo léeg sax nga am. Euh, dawkat yoo xam ne dañu foon yëf mu xaw a leen a jàpp il faut nga may leen tuuti temps ba ñu noppalu nga soog leen mën a jël ramasser leen ba fii leen ñu wax nii tey am na yoo xam ne ñu ngi en observation dañ leen di xaar parce que dañoo foon affaire bi rek poson bi dañ koo foon euh, maanaam dafay xaw a yéex pour ñu soog a sedd loolu yëpp dañ leen di xaar fi ñu toll nii ba euh, xam naa ne une cinquantaine une cinquantaine daaw opération bi mu amee on était à 61 mais xam naa on sera à une Euh, te xam naa ne mën na ko ëpp sax parce que fii léegoo-léeg da toog ba guddi bala ba 5 heures 6 heures ñu woo la ne la am na bu nekk fii donc il faut ñu xaar ba ngoon mun def une sorte situation totale pour mën a xam exactement résultat yi nga xam ne ni moom la ñu am. sur l' ensemble du territoire ñi def opération boo gisee mu néew c' parce que c' est une opération mortelle maanaam boo ci juumee rek yow sa bakkan mën na caa des parce que poson la boo xam ne bu doyo doyo doyo doy waar moo tax buñ koy waaj. ñun dañu tëju foo xam ne kenn du fa jege parce que xam nañ lan mooy poson bi dañu tëju ñun rek defara defara defara defar ba mu yemb ñu soog a dugal suñu oto ut ay ñoo xam ne jàpp nañ ne xam nañ ko daf jox leen ay conseil ñu ànd ak ñun def liggéey bi moo tax bu ma euh, bu opération bi jubee dañu def ay annonce ci rajo bi xamal képp koo xam ne gis nga ndawal bu ko laal képp koo xam ne gis nga dawkat boo xam ne loroon na bu ko laal dañu joxe suñu numéro su ko defee ñu wooñu ñu jël suñu oto jël ko dem gas kan gu xóot a xóot a xóot def leen ko daal di koy suul mais comme ni nga ko waxee le risque moom foo ko natt romb na ko waaye nag la ñu jàpp mooy dañuy liggéeyal askan bi la ñu jàpp mooy dañuy liggéeyal borom daal bu ñu weesoo ci xeex ak dawkat bi ñaareelu poñ bi mooy saytu lépp loo xam ne ndawal la wala lépp loo xam ne dafay jóge ci jur te nit ñi di ko consommer kon ñu njëkk a def mooy ci abattoir yi mooy lépp loo xam ne dañ koy consommer te di ko jaay loolu impérativement service vétérinaire daf koy xool pour que mu mën a jàll ci marché bi bu loolu weesoo am na loo xam ne dafay nekk ci biir kër yi dinañ jaar ci yenn kër kilifa yi xool ndawali xool seet lépp lu ñu gis loo xam ne jàpp nañ ne mën na indi loraange ñu attiré ci attention yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko moom mais li am solo mooy gis nga am na ay produits yoo xam ne saa boo ko defalee jur dafay am diir boo xam ne il faut ñu toog ko mën koo jëfandikoo muy ci ganaar yi muy ci xar yi muy ci nag yi muy ci béy ak lépp loo xam ne ndawal la gu ñuy jëfandikoo. moo tax ñuy attirer attention nit ñi. bu màggal jotee nañu moytu di pikiir am na pikiir yoo xam ne naam mën nga ko pikiir tey jëfandikoo ko tey mais am na pikiir yoo xam ne tey mën na dem ba ñaar fukki fan ak juróom ña tooke bi soog a jeex ci ci ci ci yaramu jur googu noonu Idrissa Faye mu jiite foofe service vétérinaire ba nekk foofe ca commune bu Darou Moussi kàddu yooyu nag mu ko doon yëkkati ci noonu yi ñu leen ko waxee rek muy wàccaayu màggalug Darou Moussi gi ñu ne nag ñi la nag di waa vétérinaire fas yéene rek bale dëkk ba boole ci nag dawkat yi noonu yi ngeen ko déggee juróom fukk jot nañ ko cee faagaagal mbokk yéen a ngi woy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bu ñu jógee Darou Moussi dañuy daal di ñëw nag fii ci dëkk bu sell bi la di Touba dem ca centre Serigne Mbacké Bousso ba nekk ca nag amal nañ seen euh, journée culturelle bu ñuy faral di amal nag at mu jot def nañ ko loolee nag lañ ca jublu rek mooy gën a xamee liggéey ba ak gën koo xamle ak itam fexe ba ndongo ya fa nekk rek gën a xam po taxawaay ak li war deg lekk seeni i wareef ci liggéey ba loolu yi nag waral ki la di euh, sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Boussa Assane sëriñ Fallou Boussa Assane di ko jiite euh, daara ji yëkkati ci ay kàddu leeral ñu àndandoo teelu ko. bis bi bis bu am cosaan la ci barabu jàngukaay yi nga xam moo topp Al Azhar muy ay bis yoom dañ koy faral di def ngir di ci xam ne liggéey bi fi mu toll waaye di ci dajeeg waajuri dongo yi waaye tam di ci woo kilifa yi xam ñoom lañ seqal dëkk bi ak kilifa yi ñu seqal liggéey bi ñu teew ñu gaaral lenn ci li dongo yi def ci daara ji ak lenn ci activités yi nga xam ñu ngi koy def ci biir daara ji loolu dañ koy faral di baaxoo di ko def ci at mu jot wala ñaar at yi nekk def ko ngir waxtaane lu mel noonu kon bis bi nag foofu rek lay dugg eh, ñi ko taxawal mooy li ñu tuddee gouvernement scolaire bi maanaam ñi xale yi nga xam ñoo ne ci école bi dañ leen di former gouvernement gouvernement bi nag li ñu jubleek mooy poste ak ministère yi nga xam ne nii day am ci gouvernement bi nga xam moo jiite seenum réew yooyu dañ koy amaat ci biir gouvernement scolaire boobu li ñu jul mooy tàggat xale yi ñoo xam ne ëllëg ñoom ñoo war a jiitu ñoo war na ci kanam te ku nekk xam ne ne ëllëg ndaw li war na ci kanam buñ ko tàggatul bu demee ba jiite mën naa am lu baree bari mën na ko bañ a xam moo tax ñu bañ leen te bëgg leen teel a tàggat ci ñu xam lan mooy responsabilité naka ngay jiitee mbooloo naka ngay waxee ki mbooloo mi naka ngay lijjanti ay mbir naka ngay organiser ay mbir loolu mooy solo gouvernement scolaire bu ko defee fii dañu am président am premier ministre am assemblée nationale am ay ministères yi yëpp dañ koy am bu ko defee bu ci nekk nag da ngay taxawale yoo xam ne nii da koy def ci ci année bi bu dee ministre de la santé ñu misaal dana dox doxal bis boo ne nii affaire environnement bi la koy jagleel am ñoo xam ne ñuy def ay ak yeneen ak yeneen yoo xam mi ngi am ci biir ak yeneen sorties yoo xam ministre affaires étrangères moo koy organisé ñu dem seeti yenn kër yi waxtaan ak ñoom loolu lépp pour xamal xale yi ëllëg yéen bu ngeen toogante bañ jox la poste boobu ban taxawaay nga ci war a am loolu mooy solos gouvernement léegi nag bis bi mel nii nag bu ñëwee nag moom ñëpp ay àndandoowaat organisé waat ko mu gouvernement bi yëpp maanaam mboolem ministères yi yëpp ñoo ci dugal seen loxo mu nekk bis boo xam ñëpp a koy bokk bokk ak ne nag premier ministère moom ñoo koy organisé kilifa yu baree bari teew nañ ci wax dëgg yàlla ni nga tàmbale ko suñu Mamour Mbacke mu Cheikh Mourtada nga xam moo ne ci bopp Al-Azhar yëpp mu Sénégal te ba Al-Azhar sosoo ba léegi mos loxo mos cee jóg waaye itam Cheikh Mourtada dem bàyyeeku ci 2004 mu liggéey bi nag boobaa léegi mën nañu wax al maanaam bu doon benn ñaar ci nañ ko ci diggante boobaak léegi moom itam mu ñëw jëmmal bis bi ci façon bu am solo boo xam wax dëgg yàlla xol yëpp sedd na ci fekk fi tam maanaam magam soxna wala boog rakam soxna Maymunatu Mbacke bint Cheikh Abdou Lahad nga xam moom tam moo jiitee groupe groupe scolaire bi ñuy tuddee si ab laat muy école bu am solo boo xam ne nii xam nañ ko ci dëkk bi xam ko ci département xam ko ci Sénégal yëpp muy solo ci réew mi mu ko ba tey génne ci mbooloo ñu darajaale ko bis bi rek moom lu def lu solo mooy ñëwal boppam jëmmal bi te ñu jàpp ne bu yabaloon délégation rek délégation bi doon doy kon bu ñëwee toog fi diir bu yàgg bi fi toog ànd ak ñun bis bi tàmbali ba mu jeex loolu itam ñu amel ko cant waaye itam tudd nga ko mel ne Serigne Saliou Serigne Saliou moom mooy mooy ñu liggéey bi ci Al-Azhar liggéey Al-Azhar yëpp ci loxoom la tege moom itam mu ñëw fi yàgg fi lool ànd ak ñun bis bi jëmmal ko moom itam waaye ku mel ne si abi monsieur nga xam ne mooy jiite Touba ca kanam moom am solo ci dëkk bi di af yëngutu yu am solo ci dëkk bi moom itam ci wàllu njàng ak yeneen yi nga xam dëkk bi da koy soxloo moom itam ñëw jëmmal bis bi nga yokk seen sax Aliou Mbacke di ko ñu xam ci dëkk bi eh, def liggéey yu am solo ci wàllu ndox mi ci dëkk bi waaye itam di continuer def liggéey bu am solo ci wàll yeete ak jaar ko ko ci rajo yi nga xam moom la yilif muy jant beeg leer geeg ceneer yooyu itam def liggéey bu am solo ci réew mi ci dëkk bi waaye fekk fi tam autorité locale yi nga xam ne nii ñoom ñoo yore ñoo nekk ci mairie bu tubaab ñoom it yebal fi ci kilifteef si Abdou Lahad Ka le maire si Abdou Lahad Ka ñu ko fi ndax dafa génn mu yebal fi Mor Lo mu ko fi waaye itam fekk fi Aliou Sylla nga xam ne moom itam membre la ci au conseil eh, moom itam ñëw jëmal bis bi ak si Abdou Lahad Mbacké Gaynde ma tam di ministre conseil moom itam yebal fii délégation soxnaam jiite ko mu ñu wane ne bëggoon naa teew xëy na ko fekk mu génn kon daal dafa mel ne euh, personnalité yu bare bare teew nañ bis loolu moo doon objectif bi da ngeen mooy ñoo ñu teew ñu xamal leen école bi fii la tool te fële lañ bëgg a jëm waaye nag ñu fekk fi jëmm joo xam ne itam mën naa wax ne école bi accès fi mu accès moom moom la muy Cheikh Mbacke Seye moom it wax dëgg yàlla dan koy ñaanal rek ndax ku nekk xam na li jëf nekk gis na ko sëñ Mor sax wax ko léegi nee na jërul wax ndax loolu ne fàng la kenn du ko jeex comme gis nañ ko def naa ne ñaanal lañ ko mën a def waaye loolu teewul moom itam mu dagg ay soxlaam ñëw teew ci bis bi jëmmal ko moom itam ñu ñaanal ko bu baax a baax. kooku di euh, Serigne bu Bousso Assane moo jiite euh, centre Serigne bu soo boobee ca Touba Madiana. mbokk yi ni ñu ko waxee woon uh, ci uh, xibaar yi kuréel gii di uh, diisoo ànd defar Mbàkke démb nag ñi ngi doon amal seenu ndaje ngir xool seenu yëngu-yëngu ana fu mu toll rek ak nan la ñu fas yéene liggéey ci lu ci li des ci ci Mbàkke loolu yi nag waral ki la di docteur du Mbodj ma jiitee googi kuréel nag yëkkati ci ay kàddu moom yi sax moo jiitee kuréel gi tamit di ànd soppi ndoxu Mbàkke Bawol moom it yëkkati na ay kàddu la mu xam ne rek nee na troisième mandat daal du moom du wax ja président Macky Sall li ko war rek mooy daal di dem able xam na waa Mbàkke saa su ne rek lu ñu leen di defal dafa war a leer looluy waral mu bindoonu bataaxal doon sàkku rek ci SDE ngir ñu leeral leen ndox mi ñu war a jëlee Sadio indi ko Mbàkke leneen lu mu xam ne tamit nee na doxinu politique yi waa Mbàkke di doxee ren li rawatina ñenn ci politiciens yi war nañ ko xoolaat docteur Mamadou Mbodj ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko docteur Mamadou Mbodj euh, président di soo andi defar Mbàkke ñu daje woon tey du doon waxtaanee ci tolluwaayu réew mi ci suñ kuréel politique googu nga xam ne ñu ngi ko sos mu juddoo ci xeex ndoxu Mbàkke ñu demoon élection municipale ba tey ma nekk seen conseil municipal kuréel gi nag continuer bi liggéey parce que li ko tax a jug rek mooy taxaw ci soxlaay askan wi taxaw ci soxlaay Mbàkke soxlaay Sénégal fi réew mi toll nag moom lañ doon dajaloo tey di confirmer na ñun ñu ngi sur le terrain politique doon waxtaan ci tolluwaay réew mi doon joxe suñu xalaat waa li ñu décidé mooy euh, fàttali rek ban politique moo amal njëriñ Sénégal ak nan lañ ko war a mënee mais également artu wax suñ euh, xalaat ci tolluwaayu réew mi di ñaan président Macky sàll lépp loo xam ne mooy sàmm jàmm réew mi mu def ko te dara jiituwu ci dëggal ay kàddoom teg waxi troisième mandat ci suuf te organiser ay élections libre et transparentes di poser ay actes yoo xam ne day wane ne moom pare na pour juge ci réew mi ci jàmm loolu nag moom lañ koy ñaan mu def ko parce que loolu mooy ni réew mi soxla waaw coow li fi am ak jafe-jafe yi am yi nii yëpp li ko indi mooy président bi moo leeralut askan wi lim leen war a leeral li ko waral nag mooy mu leeral ko kàddu yu dëggoom démb ak la mu doon bañ mu confirmer tey ne moom loolu lay bañ ba tey day dëggal boppam mais également mu bàyyi ñu ay institutions yu solide yu dëgër te loolu nag bu fekkee def na ko dina ko defal boppam dina ko defal Sénégal waa liggéey fi mu toll SONES bind nañu courrier démb lañ ci jot di wax ne avancement des travaux c'est à 54 pour cent donc mën nañoo ne liggéey bi day doog a xaaj ñu nag dañ ko bind lettre ginnaaw bu ñu gisee ne lii moom mi ngi ko doon defal askanu Mbàkke état bi investir fi ay milliards loo xam ne 21 milliards mosu fee investir sax man lu mat 500 millions ci lu ma yëg ci la ngeen xamal ne lii ngeen ñu defal askan wi kat askan wi dañ dañoo am droit xam mais non seulement askan dañoo am droit xam mais yéen en tant que ay politique daf leen a enragé sax ngeen war a communiquer ci loo xam ne lu am njëriñ la ngeen koy defal askan wi bi ñu leen bindee courrier boobu nag ñoom ci la ñu tontoo jox ñu détails yu projet bi wax ñu nu muy demee yëpp wax ñu fi mu toll mais taal nañ ci timit loxo ñoom it di ñu xamal ne euh, fi ñu toll ni ñoom soxla nañ soutien ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Mbàkke moo xam ay association la moo xam maire bi la moo xam ay boroomi kàddu la parce que pour indi ndox mi dañuy jaar si ay toolu jàmbur dañoo war a gas ay tali te loolu noonu yëpp dafa soxla ay waxtaan laaj ay autorisation ak Ageroute ak ñooñu noonu léegi na nee na ñoom loolu ñu ñu si taalal loxo loxo boobu ñun nangu nañ ko biñ jotee lettre bi wax nañoo maire bi nga xam ne moo fi nekk mu ñu si Galoba ne ko SONES kat bëgg na ñu ànd ak moom pour faciliter liggéeyam pour ñu mën accélérer travaux yi loolu tamit yow ñu ngi la si tàllal loxo pare nañ pour travailler avec SONES pare nañ tamit pour travailler ak yow loo si man ci appui nga def ko pour accélérer ndox mi ñëw fii parce que askan wi soxla nañ ko. waaw politique hydraulique du Sénégal dafa laal suuf dafa takk suuf ndax mbir mu compliqué boo dee xool fu mel ni Mbacke xewal euh, Mbacke Bawol gii ndox mi ñu fi doon jaay depuis chaque année état bi daawu si investir dara ay pompe ngay teg rek. di fay courant di xëpp eau de javel matul sax cent cinquante millions seeni frais par année boo jëlee directeur beeg li ñuy fay courant ak lépp alors que boo xoolee chiffre d'affaires bi ñu def ci population bi fi nekk mën nañ fi jaay un milliard deux cent millions nga xam ne ñoom ñu ngi fi doon jël chaque année un milliard donc bu fekkoon na ñoom yittee askan wi da soxal entreprise buy liggéey dafa war di jël ci bénéfice bi muy am di yeesal réseau bi di jël ci bénéfice bi mu am di di di étendre bi mais également di ko defar entretien loolu yëpp daawuñ ko def xaalis boobu loolu yëpp dañ ko daan jël di ko sàkkal pexe di fi bàyyee nit ñi ay feebar. donc politique bu ñu war a revoir la même bi ñu waree dem ba financer Mbàkke dañ gis ne financement bi ci ay këyit yoo xam ne wane nañ ko dafa jugee ci ay 1 pour cent yoo xam ne nii réew yu nekk Europe. ñoom ñooy ñoo koy financé ci wàllu ndox maanaam ay communes yoo xam ne dañuy jël 1 pour cent ci seen budget di ko voté pour di dimbali ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci monde bi ci amuñ accès à l'eau alors que ñun nit ñu doon jaay ndox ñoo ngi doon am bénéfice bu doy boo xam ne permettre na mu mën a financer ñu defal ñu ndox mu baax mais xaalis boobu noonu yëpp dafa naax saay tey ay tubaab ñoo ñu dimbale bañ mën a am ndox mu baax alors que nag waroon nañoo weesu foofu ndax am nañ xam bi am compétence yi xam ni nga xam ne moom la ñu war a doxalee li ñu dese rek mooy gëm suñ

docteur euh, Mamadou Mbodj euh, jiite euh, diisoo ànd defar Mbacke waaye tamit di président association ànd soppi ndoxum Mbacke Bawol mbeen mbokk yéen a ngi wéy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bu ñu jugee Mbacke dañuy daal di dem nag ca Kaolack foofee nag waa convention des jeunes reporters ñu ngi fay am pap lëlub tàggatu nag la ñu ci jublu rek nee nañu li ñu bëgg rek mooy journaliste bu ne rek mën a xootalu xóotalub liggéeyam waaye tamit di am l'accès à information fépp fu rek ma nga a la kile di Miyagi Marème Ndiaye mi nga xam ne mooy euh, président convention des jeunes reporters bu bees bi yëkkati ci ay kàddu di xam ne ne fii ci biir euh, Afrique lu mat ñaar fukki réew am nañ projet de loi boobu waaye ñoom ñi la amuñ ko lu ni mel nag waral muy woo ñi la di kilifa yi ngir ñu jël boobee projet yóbbu ko assemblée nationale Miyagi Marème Ndiaye ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. xam ngeen convention bi dafa doon euh, sooy xool ci milieu a gëm mooy base bi suñu bëggee am presse de qualité moo tax ginnaaw tàggat yi nga xam moom la ñuy def si biir école bi ñun souvent dañuy def lu ñu naan formation continue maanaam jamono dafay dox ñun ñu jàpp ni fow ñuy méngoog jamono di gën di dooleel dolli xel ñi nga xam ñoom ñooy suñu membre njaxte ñoom ñu mun a xam réellement ban taxawaay la ñuy amee su lu bëri su lu nu mel nag la ñuy ànd ak suñu partenaire muy fondation euh, Ebert euh, ndaxte depuis des années ñi ngi liggéey ak ñoom di tàggat suñuy membre bu njëkk bi code de la presse woon exactement am lan moo nekk si biir bi nag loi sur l'accès à l'information la maanaam ngir taskat xibaar bi moom mu mun a xam mu mun a am yenn saay sañ-sañu mun a jot yenn xibaar yi parce que ñoo euh, def suñu liggéey su fekkee ne dafa am ay limites su fekkee ne am na yenn xibaar yoo xam ne dañu koy tere moo ne de suy xool Sénégal ñun ñëpp dañ koy ndamoo tey itam dañuy wéy di ko mooy réew démocratie la si Afrique réew démocratie la également si monde bi ñëpp dañ koy ndamoo mais gis nañ ni sooy xool si Afrique lu ëpp ay ñaar fukki réew daal nañ koy voté mais Sénégal bokkul si ñi nga xam ne xaatim nañ ko même Gambie di suñuy dëkkandoo voté nañ ko Ghana voté nañ ko Sénégal liggéey bu dooroon na ndaxte kilifa yi tegoon nañ si ay jéego ñi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk si organisation société civile yi tàmbali woot nañ liggéey bi mais ba tey ji dafa tàggatémbe xamatuñ sax jamono ji le fan la document bi nekk ak lan lañ tëxañ ci biir loola waral nag ñun ñu ñëw fii Kaolack waxtaan ak ci pour que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Kaolack dugg ci plaidoyer bi plaidoyer bi mooy ñu ñaax organisation yi mooy ñu ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy nguurug Sénégal ngir ñu euh, accélérer liggéey bi ndaxte liggéey li daf ñuy yombalal li nga xam ne rek moom mooy suñu liggéey waaye tamit nañ xam ni du doon loo xam ne daf leen di gaañ ñoom autorités yi parce que ñun euh, lu ñuy gën di insister suñuy ndaw di leen ko wax mooy liggéey bi dañ ko war a def avec euh, responsabilité bi si war donc na seen xel daal loi bi du doon loo xam day indi gàllankoor waaye day gën a tax ñu mën a gindi askan wi ba itam ñun itam duñu juum si yenn xibaar yi nga xam ne dañ koy joxe doo tax tey ji plaidoyer bi loolu la suñ si génnee euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee Kaolack jógee Kaffrine jógee Touba jógee fi nga xam moom mooy Diourbel ba Kaolack Fatick ñoom ñëpp dinañ génn ab document ñaax kilifa yi ngir loi bi nga xam ne moom mooy accès à l'information ñu daal di koy voté nu mu gën a gaawee ci assemblée nationale. tey jii nit ñi euh, lu ñu bëgg nga xam rek daanaka moom moom ngay xam te information bi nga xam moom moo disponible tey dem nañ ba constaté ne ni daanaka sénégalais bu ne soxlawul sax léegi nga doon taskul xibaar pour mun a am suñu taxawaay. kon tey jii euh, jafe-jafe la parce que yenn contrat yi c'est vrai que ni am na yenn jéego yi nga xam ni ñu ngi koy def si yenn boor yi mais gis nañ ni si yenn contrat yi tey jii amuñ si accès alors que loo xam ni public bee ko moom amul loo xam ni comme ni ñu koy tuddee secret défense wute na donc yooyu noonu tey ji war nañ ci mën a am accès pour am sa accès nag boo xam ne mooy accès bu jaar yoon mooy ñu am loi boo xam ne moom moo koy encadré looloo waral ñu si gën di insister di si ànd euh, yi nga xam ne ñoom ñoo dooroon liggéey bi muy article 19 muy société muy forum civil kon ñooñ tey ji la ñuy gën a ñaax pour que ñu yombalal ñu liggéey bi parce que ñun lu ñu bëgg mooy am presse de qualité presse nag mooy ñu gunge leen ba nga xam ni xibaar yi wër ñu koy am ngir mën ko jox askan wi mi ngi Marème Ndiaye mooy euh, président convention des jeunes reporters di kuréel gi ëmb reporters yu ndaw yi boobee séminaire nag ñu doon amal keneen ku ca teew di euh, Daouda Mine mooy président euh, commission carte nationale de la presse moom itam ma nga ca yëkkati na moom it ay kàddu neen nag jot na sëkk nag ñu voté projet de loi boobu yi ndax li mu xam ne rek mooy sénégalais yi awoon am nañ accès à l' information lépp luy balle ci réew mi lu jëm ci wàllu tasum xibaar rek war nañ koo xam leneen lu mu xam ne tam nee na commission boobee ko dénk nag na jotoon waaye nee na junneeg juróomi téeméer jox nañ leen seen ay carte Daouda Mine ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. donc ñu ngi Kaolack euh, pour euh, participer ci benn session de formation bu nga xamante ne convention des jeunes reporters moom moo ko moom moo ko def lëkkaloo ci ak la fondation Free Héberge rencontre bu mel nii nag bi mooy ñetteel yoon bi parce que defoon nañ ko à Somone defoon ko également à Kédougou tey ñu ngi nii Kaolack euh, pour def ko séminaire la bu nga xamante ne liñ ci bëgg rek moom mooy projet de loi d'accès à l'information bi nga xamante ne mu ngi ci tiroir yi depuis bu yàgg que ñu toog waxtaan ci wax li nga xamante ne moom moo nekk ci biir def plaidoyer en tant que ñun ñi nga xamante ñoom ñooy professionnels des médias pour amener ñi nga xamante ñooy autorités gouvernementales yi ñu jël projet boobu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko président promulgué ko pour que ñu appliqué ko parce que day boo xoolee constitution du Sénégal moom moo ne ñëpp képp kuy citoyen sénégalais da nga am li nga xamante moom mooy Euh, droit à l'information mais danga nga am également liberté d'opinion te liberté d'opinion ak droit à l'information pour ñu jëmal ko il faut que mu am beneen loi bu nga xam moo koy muy loi d'accès à information loolu nag c'est à de projet et boobu ba léegi defuñu ci benn jéego te bu ñu xoolee li nga xamante ne moom moo nekk ci pays yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wër y compris Gambie nga xam moo ñu gën a jege jàpp nañ ni ëppalewuñu démocratie mais ñoom sax voté nañ lool te Sénégal voté guñ ko donc jàpp nañ nag il va falloir que ñun ñu dem foofu comme dañ ne vitrine de démocratie lañ dañ ne ñun dañ nekk ñu nga xam dañu ratifié ay convention internationale yu bëri il faut que ñu dem ci pas boobu voté ko pour ñu mun koo appliquer pour que mën a gën a mën a am accès ci yenn information yu nga xamante ne ñoom ñooy fay xaalis di entretenir ñi nga xamante ñoom ñooy les gouvernants en retour également ñooñu war nañu euh, information yi concerné ñu mettre ko à notre disposition pour que ñu mën ko vulgariser ñëpp mën ko xam ñëpp mën ko yëkk waaw boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ngi liggéey depuis avant ñu ñuy avant di recueillir dépôts yi muy liggéey intérieur muy canevas pour la validation des acquis de l'expérience et depuis euh, ubbi nañ li nga xamante moom mooy dépôts après une tournée bu nga xam dañ ko defoon ci 14 régions yëpp concerne journalistes yi ak techniciens yi di joxe ay cartes également parce que def nañ ay sessions yu bari maison de la presse et tey joxe nañ lu toll ci pratiquement mille cinq cent muy junni ak juróomi téeméeru carte yu nga xamante ne joxe nañ ko ay journalistes ak techniciens des médias sur ñaat ñaari junni euh, demande yu nga xamante recevoir nañ ko loolu nag bañ koy def dañuy appliquer rek li nga xamante moom mooy disposition jox carte nationale de presse ak ñi nga xamante ne mënuñu leen technicien des médias moom moo ko am képp ku nekkul journaliste wala nekkuloo technicien des médias mënuloo ko am képp ku nga xamante ne journaliste la ak wala technicien des médias également am na ay critères yu nga xamante ne code de la presse moom moo ko journaliste bi am na ay critères technicien des médias am na ay critères ñun nag commission dañu demander tout simplement à ce que ñu appliquer disposition yooyu nga xamante moom moo code de la presse te ñu koy def fi mu toll parce que journaliste bi même bu fekkee ni répondre na ci critères yi nga xamante moom moo koy may obligation mais dafa am ay droit yu nga xamante moom moo attaché ci loolu tey boo xoolee code de la presse avant même que ñuy wax ay commission carte nationale de presse avant même que ñuy wax ay CORED développement de la presse li nga xamante moom moo fa jiitu mooy droit et devoir des journalistes lan mooy journaliste lan moo war a nekk taxawaayam lan mooy ay droit yu nga xamante moom la mais lan mooy ay obligation yu nga xamante ne daf ko am mu dem ba nga xamante ne code boobu daf ne journaliste bu fekkee def na lu nga xamante ne naka sudul noonu lu nga xamante ne respectewul éthique ak respectewul déontologie correct mën na dem ba suspendre ko même manière également journaliste bi nga xamante ne dem na ba def lu nga xamante dëppoowu la ko yoon procureur ci boppam mën na def li nga xamante ne moom la ko yoon may mu autosaisir code pénal appliqué wu maanaam journaliste bi journaliste la am na ay droit mais am na ay obligation yu nga xamante dafa tegu ci moom te bu ko deful également am na lu nga xamante ne mën nañ ko teg ci kaw Daouda Mine di président commission carte nationale de la presse ñaari waxtu ci bëccëg fegg na juróom fukki minute ak juróom-ñaar ca ndaaya nag ca Grand Diourbel di ay gox yu nekk ca njaareem ñu wéyandi ci xibaar yi UCAB FM fii ci Touba Ndam wàññintem euh, luyaas gi euh, njiitum réew mi jëlum ndogal rek euh, ngir ñu wàññi ko lu ni mel nag ña yeewoo foofee ca njaareem am nañ ci ay gis-gis ñu wuute ñay luye ak ña ñuy luye kër ga ku ci ne rek wax nga ci say xalaat ñu àndandoo teewlu leen. yaakaar naa ne prix loyer bi ay ate ate ngi nii ñu ci waxtaan kontaan nañu bu baax a baax ci président Macky sal ak nguuram def parce que loyer bi problème bu metti la woon au niveau du Sénégal. mais donc mesure yi nga xam ne donc jël na ko pour wàññi ko ñu ko ci félicité di ko ci remercier. waaw bon wàññi prix bi de moom wàññi prix location bi moom baax na euh, bu fekkee ni effectivement wàññi bi dina effectif parce que askan wi dafa sonn donc euh, bu ñu mënee jël ay mesures de sécurité sociale yi toll yoo xam ni dina leen dimbali wàññi bi am na solo. mais problème bi mooy euh, dama yaakaar ni mesure la bu ñu jël boo xam ne rek euh, c'est politique parce que euh, du am suivi ndax boo xoolee avant amoon na fi mais du am benn suivi les textes son la am na ay textes yu nga xam ne depuis quatre-vingt ñu ngi fi mais depuis mille neuf cent quatre-vingt ñu ngi mais du am benn suivi donc man je crois que bu fekkee ni effectif na bu fekkee ni c'est sincère là c'est vraiment bien mais malheureusement euh, gow ma ni daal euh, loo xam ne day wéy la ko mais également nag di ñaax les service techniques ak les services compétents yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a doxal avec euh, la nouvelle commission bi nga xam ne moom la ñu fal aussi pour ñu saytu loolu ñu mën ko saytu bu baax a baax a baax a baax mën ko doxal également bu baax a baax a baax parce que problème mu Diourbel mooy que ne location bi. graaw fi noonu mais au niveau de la capital moom location bi foofu dafa metti muy au niveau de Dakar maintenant nag il faut que aussi euh, bailleurs yi jàpp ci population bi jàpp ci mais surtout les services compétents yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal état bi di saytu liggéey liggéey bi ci euh, urbanisation di ko di ci ci ci ci di ko di ko di ko saytu également ci immobilier bi ñooñu ñu mën a vraiment jàpp ci euh, ba nga xamante ne bi li nga xam ne mooy souhait wu président bi ñoom ñu mën ko exécuter à fond. yaakaar naa nag ne bii yoon parce que ab décret la ñu jël bu njëkk ba ak bii mesure yi ñu jël dafa am wuute man yaakaar naa ne suivi dina ci am te maa ngi ñaan président Macky Sall ak gouvernement am ñu def un suivi très très rapproché. ci mesures yi nga xam ne dañ koy jël parce que population bi yëpp kontaan na ci li ci mën a am nag mooy nañu def suivi nañ ko suivre du début jusqu'à la fin ñooñu kon uh, ngeen doon uh, teewlu di ab reportage bu ñu def foofee ca njaareem jëmale ko ci uh, luyaas yi ñu wàññi ñu doon joxe seen gis-gis ñiy luye ak ñi ñuy luye seen i gis-gis ngongog mbokk yi yéen a ngi wéy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bu ñu jugee njaareem dañuy barastiku ñëwaat fii ci dëkk bu sell bi la di Touba déguerpissement bi sëriñ Mountakha moom sëriñ Bassirou Mbacké sant njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall démb nag ña nga woon foofee ca marché Ocass ku ne marché Ocass nag di marchand ambulant marchand ambulant moom itam yëkkati na ci ay kàddu rafetlu bu baax a baax lu ni mel leneen kàddu lu mu yëkkati itam nee na li mu bëgg rek mooy bu ñu fa jógee nag ñu sàkkal leen fu ñuy uh, wéy di liggéey di daan seen doole Alaaji Fall ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. Uh, di sant yàlla di sant Serigne Touba di sant Serigne Mountakha uh, di sant sëriñ am di moo Modou Mbenda di sant tamit mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi. di am sant yàlla bu baax a baax di rafetlu aussi tamit liggéey bi Baye Fall fii nii. fekk na ñun ñi nga xamante ne ci lañ bokk jëfe nañ ndigal li nga xamante ne ni moom la sëriñ bi joxe ndax képp koo xam ne taalibe nga nekk fii ci dëkk bi buñ joxee ndigal yaa ci war a jiitu taxawaay boobu nag lañ ci am di rafetlu tamit liggéey bi ni am ni ko baay Fall yi defee di ci ànd ak ñoom di am kontaante bu baax baax ndax lépp loo xam ne ndigalu sëriñ bi la rek ñun loolu dañ ciy am xol bu sedd guy duñ ci am dara luñ ci naqari ba tax na laataa Baye Fall di fi ñëw ñu jëfe ko comme ni nga xamante ne ni noonu la ko sëriñ bi bëggee ba lépp loo xam ne ci wàllu daj ji la wala lu ñuy toj wala lenn loo xam ne ab liggéey la euh, lu jëm ci marché ambulant yi loolu moom defoon nañ ko ba pare. Euh, li ñuy ñaan rek mooy bu fekkente ni liggéey bi dem na ba jeex ñu taxawu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te amoon fi seen i place fi daan seeni doole te xam ne lii yëpp ab defar la te defar tamit fokk mu jiite nii mu nuru yàq waaye ñun xam nañ ne du yàq ak defar la defar gi nag moo tàmbalee nii. waa ñi ngi ñaan ñu organiser li nga xam ne mooy marché bi ba ñi fi nekkoon ñëpp ku ci nekk mooy ne xëy di fi daan dooleem di ko am ni mu ko amee ndaxte dëkk bi moom pas-pas bii rek a fi nekk euh, liggéey ak jaamu yàlla rek la ko sëñ bi sañ woon te loolu tamit ci lañ fas yéene nekk ba keroog ñuy wuy ji suñ borom ndaxte li amoon yëpp ci wàllu liggéey bi mooy euh, organisation te marché ambulant am nañ organisation boo xamante ne nii tey euh, pour fekk si leen ci loolu taxawu leen loolu lu yomba yomb la impacté bi nag moom ñim impacté bari na lool Euh, ndaxte avant lii di mastaw sama mbokk yi ma nga xam ne ñoo bokk nekk fii nii ñenn ñi ma bokk ak ñoom taxawal taxaw ñoom fii nii ndax avant lii di am ak lakk gu métti jaar na fi lakk suñuy place euh, ak ñeneen ñoo xam ne tamit ñi ngi ci wàll gële tamit ñoom it loolu dal na leen mu bëri ñoo xamante ne ñu ci néew doole lañ te boobu ba léegi tamit amul benn taxawaay boo xamante ne gis nañ ko ci ñu leen ci taxaw du du kenn ci dëkk bi mu nekk lu métti lool kon bu liy ñëwee dalaat seen kaw boobu ba léegi tamit ñu toog liggéeyuñ defuñu dara loolu tamit lu méttee métti la kon tamit dañuy ñaan kilifa tamit ñu taxawu ñooñu ndax tamit lu métti métti métti métti euh, ci doomu dëkk bi lañ te tamit euh, lu mel ni bu amee ñëpp ci war a teg seen loxo ngir ndaw yooyu mën a delluwaat seen i activité teewlu kon ah, di Alaaji Fall moo jiite marchand ambulant yu nekk kon ci marché Ocass ah, bu Touba ca liggéey boobee la ñuy des ndax tey jii la juróom-ñeenteelu fan bi waaye démb la juróom-ñetteelu fan bi ni leen koy faral defee nag saa su ne rek ci journal bi tey itam def nañu gëstu jëmale ko ci liggéey bi ñenn ca ña nekk ca marché Ocass rawatina Baye Fall yeeg taalibe yi seen i mbégteeg fañ toll ca liggéey bi ak Pastef gi ñu am ñu àndandoo teewlu leen. liggéey bi nag niñ ko faral di defee rek saa su nekk bu ndigal tàbbee biir te weesu lu dul li sëñ bi bëgg ñu def ko ni mu ko bëggee ci loolu lañ nekk nag depuis le 24 nga xamante daf ñoo fekkoon sax si ndigal ndax mi ngi fekkoon ci liggéey kër sëñ Touba gi nekk Mbacke Xewar gannaaw gi nag si la sëñ bi indiwaat baat ngir ñu liggéeyal ko tàmbalee ko fee nga xamante ni mooy corniche bi ak kàmb yi ak fii nga xamante ni mooy marché Ocass depuis le 24 nag ñu ngi fii di liggéeyal sëñ bi góor ak jigéen mag ak ndaw fu waay mën fu waay nekk rek mu ngi koy jógee di ñëw lu waay amit mi ngi koy indi waaye lu waay xamit mi ngi koy wax ngir lan li sëñ bi bëgg rek ñu def ko loolu rek lanu bëgg ngir xam na ne buñ ko defee am ngërëmal sëriñ bi moo tax murid yi bawoo nañ fu ne teel a ñëw tey jii fii si marché Ocass lan nit ñi doon wax nag amut sëñ Ablaye ndax marché bi borom place yi ñoo génn ànd ak murid yi li nga xamante ni mooy mooy liggéey bi ñii ngi ñii ñi ngi ñuy dooleel ñi ngi ñuy taxawu kon ña doon wax naan Ocas nee nañ bu ngeen fa bu ngeen fa ñëwee nangam ak nangam ay yàqkat kes kese lañ ndax dëkk bii dëkkub Serigne Touba la te ni ma koy faral di waxee ku fi nekk rek da ngaa waroon di fay weer bu jot doon dafa yoon na kon da war a wëy si ndigal moom la nu xam nag waa marché bi génn tey ànd ak Baye yi jàppale leen si liggéey bi moo tax gis nga liggéey bi day mel ne doxul sax waaye day daw. tey sëñ Ablaye koo fi gis rek si ndigal la la ñëwee ndax démb sëñ bi da koo koo xamante ni li ñuy wax. li sëñ bi bëgg mënoo koo def wala mënoo koo def ni ko sëñ bëggee toogal paa leen foofu noonu ñu daaj si kar si nga mën faa nekk si karandoog ñoom ñi nga xamante ne li sëñ bi bëgg nag mënee nañ ko noonu ni ko ni ko sëñ bëggee lañu ñëw fii muy ànd yar ak teggin liggéey liggéey liggéey bu mucc ayib sëñ bi nag ni mu ko diglee mooy barab bu nekk boo ëppee ñaari mètre nañ ko wàññi pavé bu maasik tali bi tamit nañ ko bàyyi noonu tey ci loolu lañ nekk moom la ñuy wër fii nag bu bu sëñ bu jaree fobeere sax daañu ko fobeere bu amoon suuf daañu ko lay ndax lu nu bëgg mooy sëriñ bi lu mu bëgg mu am ko tey dañuy faral di wax nag yàlla buy defar day mel ni koy yàq kon lii sëriñ Muntaxa digle luy defar la te bu ëllëgee bu sottee si lañ xam njariñ li liggéey bi moom ni ko sëñ bi bëggee rek la ko fa taali bi fas yéene defee ñoo ngi nii ci marché Ocass ni ko sëñ bi waxee rek lépp lu nekk ci yoon wi ak mbalit ak taq-taq ñoo ngi koy dindi lépp lu nekk alalu jàmm te sëñ bi waxul laal kenn laalu ko ci ndigal sëñ bi rek dañ ci leen war fas yéene tënku suñuy dund ak suñuy dee yëpp sëñ moom lu mu bëgg rek Seera Faal defal ko ci loolu rek la nekk yàqu nu alalu nu jàmm tooñu nu kenn di sëñ yaatal marché bi lii daagal naa ne waa maa suba suñu xëy see leen xam ne lii ñu leen defal moo gën ci ñoom yal na suñu borom yàggal fi sëñ am di moo du mbend ak jëriñam na sëñ ba Bassirou ndigal lii nag daa am solo loolu te rëy lool te yéeme lool kër Cheikh Ibra menn mbañ la am muy ñàkk jëfi ndigal ba yoon wi sos ak léegi nag mosta am ndigal lu ñëw rek Cheikh Ibra jëfe na ko nam ko war a jëfee loolu nag mooy dox ba suñu jon tey ji lii ku fi ñëw ba gis liggéey bi ak fi ñuy jaar yëpp ni mu rafetee ak pësteefu ak ni mu taaroo dangay xam ni dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba defal na ko lu kawe njort yéeganu ko foo xam si nii neexul a àgg. dégg nga Mamadou Mountakha Mbacké joxe ndigal li mboolem njobootu borom Touba di sëñ Mountakha bokkal borom Touba fi ñu fi toll ñooñu la ñuy gën a wane nit ñi ñoom di ñu ngi béggee ndigalul sëñ Mountakha Mbacké lii ànd ceeg nun di nu gunge ci ay xéewal di nu gunge ci ay ci ci ci soññu ci ndigul sëñ bi mboolem seex yi nga xamante ni sëñ Touba. dafa jox la seen i maam ndombay tànk ñu ne ci biir dëkk bi kër ku ne ci toll da ngay wane ni ndigalul suñ mu taqaa lii nii nu koy bégg noonu Baay Faal yi noonu la mboolem njobot suñ Tuubaa gépp ànd di ko bégg ak noonu léegi tam nii fii suñ maamu doon waxee te mooy dëgg maa ngi ci digg marché Ocass waaye fu ma toll ci marché Ocass commerçant yi fi nekk ak yi fi nekkan ak jaaykat yi ñoom tam li ñu wane won nañu ni lii suñ mun taqaa joxe ndigal ni luñ ci bëgg nun njabootu maam si Ibrahima Fall commerçant yi marché occasion si noonu lañ ci bëgg ñooñu kon euh, ngeen doon teewlu noonu ñu leen ko waxee rek di liñ leen euh, jagleeloon muy euh, reportage boobu nga xam ni bi ñu dooree liggéey beek léegi saasu na rek dañu leen ko indil noonu ñu leen ko xamlee nag ña nga foofee kon ca marché ocas bu Touba mbokk yi kon lii mooy li fi ruuse woon ci ay xibaar ne kiis ñu defuk fàttali ci li ci gënoon a fees. xibaar yi fii si UCAB FM ak bokkoon na li ci gënoon a fes ci xibaar yi ñu leen ko doon faram-fàcceel ay fan rek des ngir ñu amal màggalug Daaru Musti gi lu ni mel nag waraloon service vétérinaire ba nekk foofee ca Daaru Musti ànd koog yenn ci kilifa yi ngir posé na yenn ci ay mala rawatina dawkat ya lu ci toll ci juróom fukk jot nañ leen a faagaagal foofee ca Daaru Musti teewlu ngeen kii di Idrissa Faye ci biir xibaar yi mbokk yi lii itam teg nañ ci journée culturelle école Serigne Mbacke Bousso muy franco arabe bu ku ko jiite di institut Al Azhar ba di la di kilifa yëkkati ay kàddu fa ñu toll ci liggéey ba sëriñ Fallou Bousso Assane ko ci dëkk bu fii ci dëkk bu sell bi la di Touba ci njiital euh, njabootuk maam maam Cheikh Ibrahima ñu koy amal foofee ca marché Ocass bu Touba ki la di Alaaji Fall mi jiitee marchand ambulant yëkkati ci ay kàddu ngir rafet lu ni mel waaye itam di xam ne li ñu bëgg rek mooy ñu sàkku leen ay barab yi ñuy continuer di mën a amal seenub liggéey docteur Mamadou Mbodj di ki jiite association ànd soppi ndoxum Mbàkke Bawol waaye diisoo tamit defar Mbàkke yëkkati ay kàddu nee li mu xam ne rek mooy président Macky bu mu samp mu ko am dëndëm jëm di laaj ñetteelu mandat leneen tam lu mu xam ne nee na bind nañu bataaxal ngir yóbbu ko ci kilifa yi jiite SDE pour ñu leeral leen liggéey ba fañ ca toll ngir ndox mi ñu war a jëlee indi ko file ci Mbàkke ba tey ci xibaar yi demoon nañ foofee ca Kaolack ab lëlub tàggat bu ñuy amal jëmale ko ci waa convention des jeunes reporters muy kuréel gi ëmb ndaw yi yi muy lëlub ñaari fan tey ji la ko door ak suba loolu yi nag waral ki la dem mi gi Marème Ndiaye mi xibaar bi mënu mën a def fupp liggéeyam ba tey kenn ca ña fa teewoon di Daouda Mine mi jiite euh, commission carte nationale de la presse moom itam yëkkati na ci ay di xam ne ne ñu wër téeméeri euh, réew wala ji ñu wër am nañu li la rek di liberté boobu di projet de loi bi loolu nag waral muy woo ñi la di nguurug Sénégal ngir ñu voté projet de loi boobee bu dee nag lu jëm ci wàllu carte commission nationale de la presse yi nee nañu joxe nañ ca lu ci toll violence gi loolee nag askan wa ana nan lañ ko gisee teewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar gi niñ leen koy faral defee saa su ne rek ci xibaar yi tey jii di juróom-ñeenteelu fan bi demaloon nañ leen ci juróom-ñetteelu fanu liggéey bi maam Cheikh jabootug maam Cheikh Ibrahima Fall di amal fii ci dëkk bu sell bi de Touba rawal jagleel ko déguerpissement bi analyser seen kàddu ak Pastef gu taalibe yi am nañ ko teewlu ngeen leen ci xibaar yi mbokk yi lii lañ amoon leen ko Cheikh Bey mooy ki newoon ci machine bi Mamadou Moustapha Ndiaye mooy ki doon ko doon jottali rédaction bu rajo UCAB di leen jox dig daje incha allahu rabi ci xibaaru guddi yi ñu fas cee ànd ak man yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ñu defal jàmm sutura ak teranga barke borom dëkk bi ñu doon àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf